waaw asalaamaaleykum damay leb tur bi donc euh, mu bëggoon andi sama contribution si euh, maîtresse euh, femme mariée nga wax sànq dama déglu sa commentaire nga def par rapport Mariam et l'autre et Cheikh voilà donc histoire la boo xam aussi peut-être au Sénégal mais. je ne sais ndax góor yi respecté nañu jigéen yi daal moo tax ma ne euh, peut-être li nga joxe comme euh, comme euh, explication si loolu aussi nee nga peut-être parce que Cheikh dafa sës moo tax mu def ko mais sës taxul nga def loo xam ne ëllëg di nga ko réccu daal parce que sës bi mooy ah peut-être wax na ko doo ko takk mu ne ko peut-être dama koy takk mais c'est pas une raison de pratiquer li mu def quoi de mu dem takk ko voilà parce que non seulement dina dem takk ko dina tas këram dina tas seeyam dina tas mbokk ah mais aussi dinaa ko takk boobu mu ko wax noonu parce que ndaw si wax na ko doo ko takk mu ne ko dinaa ko takk loo gis dañ koy négocier mënoon na mënoon moom bàyyi affaire yi seet bañ précipité dara daal wan expliqué fexe nu mu ko naxante moom expliqué ko ba mu ko. mais bu fekkente ne daf ko ne man am na foo xam ne ndaw see ngi naan léegi monogamie la signé signé wul ba di ko naan fii xaw ma sama territoire la fay fay impôt machin des choses comme ça donc du coup cher man je ne pas attitude am foofu daal man pour man lan la ci droit am nekk ne ko ko takk parce que day jaxase seen li tax jaxase vie boobu moo indi moo indi perturbation ba mu dofloo ko enfin dof toowu ko sax doful sax. mais ay dafa yëngal bopp bi daal parce que dof du comporté ko marem ni mu def ndoom marem dara jotu ko doful feebar moo ko jàpp ci ay situation nekk voilà donc li ma bëggoon wax foofu noonu nag man mooy man ku ma def lu mel ni ah dinaa toog seetaan man maa ngi nii je suis mariée maa ngi nii fii te France a nekk te li ma dal boo gën li dal marem parce que Marème Sénégal la nekk man je ne suis pas au Sénégal te man dafa day dof doful na nëbb ma en pendant dix yoo xam ne di wax ay ay may may gis naa ko rek muy wax wax téléphone guddi xaw ma ce man damay dem liggéey wàcc su ma paree damay tëddi moom aussi tam damay gis ne day toog ay toog si télé ba tardivement donc voilà donc pour man dafa am. ay émission yi muy suivre à cette heure là ndeke yoo du loolu ndekete yoo affaire bi mooy ndekete wax na ko waa Sénégal dem na Sénégal dem papam moo gaañu woon dem pour 15 jours pare ci loolu dem fa seen waa kër pour faj mère parce que elles sont pas d'accord ak man famille pour ñoom nee nañ sëy tubaab laay def te defuma sëy tubaab dañu bëgg ak jigéen buy dugg ñoom di wax ak ñoom di xuloog ñoom di jëflante ak ñoom te man ñaarewuñ ma noonu. pour ñoom ñun dama leen xeeb wala mais du xeebaate waxtaan ak masla la seqante ak ñoom am sama yëf may leen point final mais sequma sequma ak ñoom ay toog du duggante du waxalante dikkalante xuloo xeexante yooyu moo nekk seen mooy ay vie ñoom au Sénégal donc du coup même sama propre sama jëkkër ci boppam nee na mooy ñiy bàyyi leen parce que dañu bëri histoire dañu leen di ay problème dañu leen lii wax ma ay affaire bëri ci moom ba noppi retourné ñu jaxase bopp bi. xaw dañ ko liggéey xaw ma nuñ ko def moom ci boppam xam toog na ne ma dañ ma lii li ma li ma def nii dama bëgg nga baal ma ak parce que dañ dafa ko def te tayu ma ko dañ ma ko def loo dañ ma liggéey pour ma def ko seen waa kër dañ ko liggéey xëy na peut-être dañ ko liggéey pour mu def ko mais li mu def c'est pas parce que tayu ko seen waa kër dañ ko def pour faj mer dem bàyyi ko mu ñëw Sénégal ñu dugal ko ci benn xale en 10 jours ñibbi si Sénégal fii rek retourné takk jékki-jékki ñu ko ne ko may nañ ko mais nee yow ko boo xam ne yow France fii man sama mariage ak moom defee ko je l'ai pas fait au Sénégal laa ko defee mar France laa marié ak moom fee jàkk ji Sénégal lañ ko defee en ce moment j'étais au Sénégal et lui il était ici en France mais civil bi en France lañ ko defee xëy naa bës rek di wax ak moom di waxtaan ak moom rek mu ne ma may nañ ma jabar quoi mu ne ko da ngay foo wala mu ne ma noo foo mu parce que takk naa jabar. ma ne ko da damay deewoon ngay wax nii comme ça tu fu comme ça à la fii mais ni ma ko fajee mooy ne ko takk nga jabar ma ne ko bu fekkee ma ne ko dama bëgg nga lu leer nañ ko midi takk naa jabar du la ci génne ma jóg dem gendarmerie laa ko yóbbu muy réccu ne seen waa kër ñoo ko def. tayuma ko tayuma ko tayuma ko ça veut dire quoi góor bu toll nii léegi-léegi nga def si li ngay def ànd ak seen waa kër def loolu ay conneries ba noppi nga ñëw naanoo tayu ma ko tayu ma ko taxul mu ko parce que su ko bàyyi ne ko da nga ñàkk fayda voilà donc seen waa kër dañ koy wax da nga ñàkk fulla da nga ñàkk mu kii moo la jiital sañoo def dara machin donc ñoom ñoo ko poussé abo ba mu def li mu def man wax yi ma wax wan na ma ne tayu ko yóbbu naa ko tribunal dem naa gendarmerie ak moom toog nañ si kanam médiateur mu ne takkul jabar Sénégal takkul la wax ma ne ko c'est ce que je maintiens pour man takku elle n'existe pas man ku dof-dof lu ba takk jabar indi naan ma ñëw di ma takk nga jabar di nga wéetoo sa jabar parce que dootuma la faaleeti lu baax loo gisoon ci ma ne dinaa ko soppale ko muy lu bon sama yoon nekku ci bu balaa may dee ñu jiital yàlla yàlla waxul nga jaxase biir jàmbur yàlla waxul nga jaxase biir jàmbur kenn waxu ko. Marème nag moom ëppal na ëppal goo xam ne waroon na toog këram jàpp ña waxuma la ne amul ay vie dafa dëkk moom kenn nag ak am na ko mu dëkk rek waa këram waxuñ ko waxuñ ko moo tay li mu xam na ko moo gën a tay ne ñëw initié ci biir biiw biiw laal la solution bi moo moo moo dugg ci jëkkër jàmbur ku dugg ci jëkkër jàmbur da ngay dem toog muñ toog ba waa ji ñëw fekk la bu fekkee ba ñëw yàq ci diggante waa ji laal la libre na ci bañ ko accepter libre na pour bañ dund dundam man loo laa def man nii waaw sama biir kër la nekk France la nekk bëgguma fi dégg woote bëgguma fi woote téléphone bëgguma fi waxu waxu ni ku yi dañ koy wax wala di ko waxee ci mbedd ma sama biir kër du fi toog di wuyu téléphone nee naa ko soo amee looy wax na nga génn si biti te mbedd ma derrière hors hors devant fii ci gannaaw ba wala sa biir oto nga génn kër gi dem yaa xam foo jëm nga waxee ji ko fa man. elle n'existe pas elle n'est pas reconnue elle n'existe pas xale ka mu takk sama yoon nekk ci boole ci ay affaire ñeeyoo def ci am ma ne ko kooku sa sa sa sa sama mi ëppal noo sama ay doom de toute façon duñu takkante ñooñu ànd jox moom du fa dem dégg na li ma ko wax ku teg français yi bañ nag comme nit bien laasé ak moom ma ngi koy surveiller li muy def mu ngi def di tubb xaalis di ko yónnee Sénégal j'ai les preuves. te bés moom xam na ne bés boo ko yóbbatul naa mu dee xam na ko xam na ne bés bu xale boobu nag amul lu muy bëgg ak lu muy bañ lu mu mën mooy toog di cëmp toog xaar mu dem Sénégal dem na fi deux fois Sénégal en cinq ans deux fois kooku mooy perte parce que am na yenn yoo xam ne jigéenu Sénégal yi seen boobu bu fekkente dañuy gis jëkkëru jàmbur bu nekk France nit muy dem di ñëw koo xam ne sañul def vingt jours Sénégal kooku dëkkul Sénégal dëkkul Sénégal. E e e comme ne sañul def vingt jours Sénégal nee naa xaar ma def plus de deux semaines Sénégal papaam dee na yaayam nii nii nii xaar tànkam dëgg Sénégal bu demee Sénégal bu ñëwee dootul dugg fii kër gi wala bu ñëwee fii ay assistance sociale lay fekk fii nañ wax ak moom moo tax dematul yàqul rek fii ka ne fe dem na fa def que quinze jours ñibbi si ñëw même pas neuf mois sept mois et demi naan la kooku am doom looloo xew Sénégal Sénégal lijjanti ay jëkkër yooyu la ñu mën man nag ça ne marche pas ak man moo tax ma ne gis wax jàpp fu mu jàpp waaw li mu def man je suis avec la langue parce que jigéenu Sénégal dañu xamuñu lu bëgg waaw xamuñu lu ñu bëgg pour ma loola mais ay mbokku la ay mbokku mareem xanaa ñoom jànguñu wala je sais pas moi nga gis ku toog am jabaram ak biir rek la nga bëgg dem di bëgganteeg moom ba bëgg a dugg ci biir këram tas këram mu ne man Marème ko naan sa tànk mu dugg sama biir kër Marème ko def sax moom mi invité bu doon man dégg bu baax li ma ko si benn jumla ko wokk li ma koy wax. franchement seen série bi neex na neex goo xam ne <laughs> franchement neex na neex goo xam ne lii xaw ma sax naka laa leen koy waxee parce que moom du ko seetaan kii du fi du ko du toog si télé bi ba seetaan ko man nag xale yi ñu ngi koy xale seen bopp. Illicite zijn papa si biir liggéey bi di joué c'est très bien xale seen bopp xam nañ ne ñeneen Sénégal ku ñu takk deuxième femme tamit kooku noonu waaw man ko xooloo am am dong tax nga topp ci wala nga def bu la yónneewul xaalis sëy bi taas moom mi dematul ñaata at a ngi demul deux ans ngi demul Sénégal tant que loxo baa ngi dem rek pour ñoom ñu ngi ci biir sëy bi kii nag maa ngi koy xaar mu bougé comme ni te de bien lu mu yónnee ci xaalis maa ngi ak sama ay preuve waaw kii rek naa jóg attaqué ko communauté bi naa jënd kër ak France gi gii naa fi jënd kër ak moom ba noppi bu ko ko bokk ak beneen jigéen bu nekk Sénégal mais dites-moi la vérité quand même bu fekkee ne moom dafa dof ne dugal nañu ba dugg ba ci biir biir xam na ne loolu moom ci boppam xam na ne kee moom day rek mën a muñ toog su ko gisee gis na ko su ko gisul gisu ko voilà scénario bii nag bés boo leen ko bëggee jouer. contacté leen ma bàyyil ma mooy sa message vocal su ma leen waxee lii di ngeen ci am ma waxuma la trois troisième saison sax waaye lu ëpp cinq saison saison sax di euh, xaw a soj nag moo tax ma waxee nii parce que maa ngi tëdd ci kaw laa laa tëdd nii di wax ak yéen mais xam naa ci kanam moom xam naa dañ ciy déggante waat ok maa ngi leen remercier ci seen service. te di leen wan ne franchement di leen encouragé aussi comme quoi li ngeen di def ñu bari ñu ngi ci seen bopp et ñu ngi ci yeewu nag ñu bari yeewu nañ jigéen seen bopp nag ñoom aussi ñoo ci waroon yeewu bañ ci si jëkkëru jàmbur nii nii nii mu jàppale di leen maltraité ay stress ak lu ne di la ci fekk dugg si jëkkër jàmbur boobu ne doo ko gis dugg si jëkkër jàmbur boo da nga ñëw pour tas loolu dañ ci xool yàlla loolu su fekkente ne loolu bu dee ngir wax naan ay ngir yàlla tax ay yàlla tax ak tout ça c'est du pipeau sénégalais ci boppu moo gëmul dara sénégalais ci boppam moo gëmul dara voilà man moo tax ma ne man gis nga Sénégal di fa dem sax yàq la laa wax boo fa amatul sa yaay sa pap ay mag rek nga xam baleen foofu yàq la pour dem Sénégal loolu laa ki gisee parce que da ngay ànd ak sa jëkkër ngeen nekk si jàmm dem Sénégal benn yoon ñu kar ko moom kenn muy dem Sénégal di def bàyyi bu demee moom boo bàyyee sa jàmm ak sa jëkkër mu dem moom kenn Sénégal tey loolu problème Sénégal yàqu na yàqu goo xam ne franchement j'ai même pas j'ai même plus envie d'y aller xanaa sama ay doom ñoo bëgg a dem Sénégal rek mais moi j'ai plus envie franchement voilà di déglu nag ci ni may waxee nii parce que wolof Sénégal bi te ne wolof bi aussi peut-être boo nee boo yaayee fii dafay xaw a jafe pour nga génnee mooy comme il faut quoi voilà allez à bientôt salut.